Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku internet yi nga xamante ne yéen ñuy suivre à travers Salam Vision dañu amaat mbégte tey dellusiwaat ci suñu émission bi nga xamante ni dootu leen xam-xam ni maanaam mooy ruq yeeg ruqaat yi nga xamante ne tënku na ci biir li nga xamante ni mooy jotaayu politique bi nga xam ne moo xew ci suñu biir réew mi rawatina jamono bii ñu toll fi nga xam ne li nga xam ne moom la ñu dëgmal muy élection locale yi nga xam ne mi ngi ci suñu kanam macha allah tey ñu def ko fii ci Pikine tali macha allah rabbi askan wee ko moom li tax ñu def see COPITAG mooy askan wi lañ fi dajale bëgg a waxtaanee waat ak ñoom kenn ku ci ne ci gox bi mu nekk ak lañ fay fasante ko ak lañ fay jànkonteel ci nga xam ne mooy doon ay coono tey nag ñaar ñuy fas yéene dalal bokk benn commune muy commune bi nga xam ne mooy commune Pikine Nord ki nga xamante ne moo doon njégli di euh, monsieur Amadou Diarra doon maire bi nga xam ne mooy maire bi nekkoon ci commune bi waaye tey ñi ñu fi dalal kenn kii ci sama ndeyjoor dinañ ko bàyyi mu nuyoo présenté boppam ki ci sama càmmoñ tam ñu bàyyi ko mu nuyoo présenté boppam ndax kenn ku ci ne ak dox bi muy dox waaye bu ñu xoolee léppoo lépp lépp léegi daal di méngoo ci benn anam ni ñuy def rek mooy dañuy gëstu suñu ndeyjoor daal di dalal ki nga xamante ni nuyu ki nga xam ne mooy Cheikh Serif Assane bàyyi ko mu présenté sax boppam mooy dàq wax tam fi mu bokk ak ca nag lan la fa yor ñu daal di wéyal ko kon Cheikh bisimilah. Euh, jërëjëf Samb. Hmm. ñu ngi nuyu euh, Salam Vision euh, di nuyu. askanu Pikine département parce que tey ñi ngi fenn ci biir commune yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir euh, département de Pikine euh, kon ñu ngi nuyu ñëpp di wax ni maa ngi tudd Assane Dioum nekk ci benn mouvement bu ñuy wax dëggu ànd liggéey muy dal ak Moussa Niang jiite mouvement bi may responsable euh, mouvement bi fii ci département de Pikine bokk ci benn coalition bu ñuy wax ànd liggéey suñu bopp euh, Mapenda Faye nekk euh, ki nga xamante ni mooy tête de bi nga xamante ni hmm. euh, moo nekk ci moo jiite tey coalition bi nga xamante ni moom la ñu àndal pour fas ne jëm ci hmm. lii di local yi ñu jëm mu doon lu am solo dégg ngeen ko ni moom xamante présenté woo tam wax itam fi nga xamante ni fa la bokk ak ndombay tàngal nga xamante ni suñu borom jox na ko fa waaye ci suñu càmmoñ itam ñu daje koo xamante ni Ousseynou Ndiaye lañ ko gën a xamee Ousseynou ñu bàyyi la nga nuyoo présenté wu wax itam yow tamit ci mouvement yoo xamante ni yaa ngi ko dirigé ci biir gox bi waaw salaamaaleykum mhm. maa sama naataango bi mhm. moo fi dajal muy assan Dioum mhm. di nuyu waa Salam Vision di nuyu Pikinois yi waaw man rek Ousseynou Ndiaye ñu gën ma ñu may tàkkante la wëz waaw ma nekkoon euh, ndaw boo xam ni Pikine Nord rek a ma hmm. ma jiite woon ci euh, benn mouvement boobu bu ñuy wax mouvement action citoyen waaw euh, nekkoon tamit koo xam ne daal Pikine daal ma ñor hmm. du nuyu ñëpp waaw du nuyu ñëpp dëgg yàlla daal maa ngi nuyu ñëpp macha allah su ko defee rek kon mbokk internet yi dégg ngeen ko ni nga xam ne présenté woon nañ ko mu doon lu am solo ni ñu def rek mooy dañu daal di wéyal waxtaan wi xam ne rek wax dëgg yàlla léppi léppi rek lu jëmee suñu askan wi kanam rawatina suñu gox bi nga xam ne moom la ñu bokk saa su ne Pikine Nord koy na ko ko ne xam na ko fi ma bëggoon ñu tàmbalee waxtaan bi mooy fan yi dañu gis benn audio boo xam ne ojo fuité lañ ko mën a wax je sais mais audio la boo xamante ni audio bi dafay dafay dafay révélé ay ki nga xam ne mooy actuel maire bi fi nekkoon di maître monsieur Amadou Diarra di ay kàddu yu mu ci génnee di wax ni ku bëgg soxla sama bilan na ñëw ñu wan ko suñu bilan kàddu yi mu ko waxee amaana am na ñu mu neex am na ñu mu neexul mais ci déggin am na ñoo xamante ni daal dañu critiquer kàddu yi tey ji ana nooy jàngatee euh, kàddu yooyu nga xam ne dégg nga ko ci euh, Amadou jara bon waaw li may euh, di maire sax mooy maire bi. effectivement moo nekkoon meer bi mooy meer bi actuellement. tout à fait. meer bi nga xamante ni tey moo fi nekk. Mm-hmm. jiite commune Pikine Nord. Mm-hmm. suñu demee ba kenn ci askanam. ci mm-hmm. citoyen daje ak moom ci benn groupe WhatsApp. ñu koy laaj lan mooy sa bilan. mu ni képp ku bëgg xam sama bilan. boo génnee ci groupe bi taxaw dinaa la wax lan laa def ci yow ci sama bilan mm-hmm. su ma ko deful ci yow def naa ko ci sa yaay mm-hmm. wala sa papa wala sa dëkkandoo wala sa mag mm-hmm. wax ko mënuma ko jàngatee nenn lu dul ni ko ñëpp jàngatee ay kàddu yoo xamante ni xaaruñu ko woon ci kilifa xaaruñu ko woon ci maire bi nga xam ni dañ la dénk nga xam ni yow moment bii li la waroon rek mooy génn sa bilan teg ci sa bilan la askan bi di sukkandiku fal la. Mhm. reconduire la. Mhm. wala ñu sukkandiku ci duñ la tegaat. tout à fait. mais boo demee ba ñu lay laaj nag lan mooy sa bilan. Mhm. nga leen di doon mën naa ko tuddee saaga. <laughs> ah def naa ko ci sa ci seen yaay wala seen papa. vraiment du kàddu bu kenn rafetlu jàngat boobu laa ci def. kàddu bu ruslu la. Ah, te vraiment ah, maa koy déglu bëgg na ko bëgg na ko rafetalaat. ah mais mais ba léegi mënu ko rafetal parce que même kàddu bi lay mën a waxaat parce que mënoo ko tuddee leneen lu dul saaga la. Mm-hmm. Ah, vraiment loolu laa mën wax ci euh, kàddu yooyu nga xamante ni. Euh, maire Pikine Nord euh, yëkkati na ko ci kàddoom du woon kàddu yi ñuy xaar ci kilifa. Mm-hmm. vraiment macha allah Ousseyn yow ban jàngat nga am ci dégg déggin nga am ci kàddu yooyu nga xam ne dégg ko ci monsieur le maire Amadou Diarra. monsieur mm-hmm. loolu mu wax. man. man daal wax dëgg yàlla lu ñu doon xaar ci moom waruñu ko woon xaar ci moom war bu fekkoon dañ koy xaar ci moom sax waruñu ko woon hmm. ci moom. sama naataangoo bi rek wax ju rafet la wax. Hmm. waaye man dama jàpp ni loolu lu mu def saaga la saaga population bi. Hmm. parce que li mu wax wax ju rafet wax bi tegg nii ndax kilifa da ngay def fu kilifa da ngay wax kilifa. ndax yow bilan moom fu mu toll nii moom warul campagne waru wax ci lenn. dafa war a war loolu moo ko waroon war a fexe génn lépp loo xam ne liggéey na ko mu tegal ñu ko caabal ñun loolu lañ doon xaar ci moom waaye jaraa vraiment neexul ba neexul waaye daf ñoo saaga saaga sunu parents yi dafa loo xam ne dafa man daal rafetlu ma ko ndax tamit wax dëgg yàlla Pikine Nord jaraa mii ñu topp ci gannaawam mii rek di daw muy def lu ñuy def lu ko neex jaraa gënuñu judd gënul jàng suñu leader yi ñu ñii muy xëccoo amul kum ci gën a jàng amul kum ci gën a ëpp niveau. kon tey jii ñun war nañ mën a am gëm-gëm boo xam ne. jaraa dóor ñu wala jaraa wax ñu wax ju teg méngawul ak li mu bëgg ñu ji mais danoo jëm ay élection def nañu lu ñu naqari mais nan ko maam du xeex du xuloo. nañu dugg ci urne yi ji fexe nu ko fi jëlee. loolu mooy wax ji ndax wax ji mu wax nag bu wax ju tegg noonu. Hmm. wax ji man wax dëgg yàlla. man gis naa sax mag ñu mag ñu ci wax ba jooy daan ne kii daf ñoo yab ndax lii lii lii dafa am man man dafa am loo xam da koy signe la bu wane quoi. mais est-ce du déggin itam tam fi mu toll non déggin benn déggin wutewul. Hmm. lépp benn gis-gis bi lañ wax. wala seen ndey yi boo seen ndey yi seen bàyyi rek. Hmm. donc loolu dootul respect. Hmm. dootul respect lii dafa am benn signe bu grave bu muy joxe rek lii mu wax nii. ça veut dire que ni liggéeyu mbedd mi ñu ko quoi dafa mel ni ñàkk yi ci biir kër yi la nekk. ndax moom bu fekkee intervention bi ci biir kër yi la koy la koy def yi kon ça veut dire que ni euh, gox bu pauvre nii gox bu ëpp xaalis ci gox yi moo nekk commune Pikine Nord bi li muy li muy gën ci recette amul ci benn commune bu muy gën ci recette kon ça veut ça veut dire que ni li li lay war ni kon Jara fàtte na euh, fàtte na sunu tali bu mag bi nga xam ni lu bari moo koy génnee fàtte fàtte na lu bari yoo xam ni war nañ ko fee def da ko fee fàtt da ko fàtte ba tax muy jubal ci kër kon ça veut dire que ñàkk gi moo fi bari loolu daal laa amoon loo xam ni <laughs> dinaa ko wax ci côté macha allah am na solo am na solo man dama jàpp ne nag ci gis xëy na dégg ni wala fi mu ne waaye mais d' après ni ni ko population bi yëpp jàppee li li li mag ñi wax rek li ëpp ci kon mooy dëgg kon li ñëpp ànd ci lañu loolu la ñu mën a sukkandiku mais Assane tey jii ak fi nga xamante ni fa nga fa fa fa nga bokk tey jii wax dëgg yàlla et puis wax nga sànq seen représentativité ni ni mu ni mu demee tam ci ci biir gox bi mais tey jii yéen ak leader bi nga xam ne moom moom moom moom mooy leaderu euh, dëggu coalition dëggu ah dëggu donc ànd liggéeyal ànd liggéeyal suñu ko voilà mooy coalition mooy dëggu mooy dëggu ànd liggéey ok dëggu ànd liggéey dal macha allah mu doon lu am solo dal boobu noonu tey jii fi mu toll ak élection locale yi nekk suñu kanam naka ngeen ko waaji ak naka ngeen ci dara demee gannaaw bu fi kénte di yàlla dogal ne defe naa ni comme ak coalition bi ngeen demee tey jii di si wala dinañ ko hmm. waaw waaw xam ñu koy wax Weuz muy euh, vraiment nit ku am engagement. surtout commune bi nga xamante ni moom lañ bokk dëkk. Mhm. vraiment di la masaw coono ci li ngay taj ci biir commune bi. Ah. Mhm. pour tontu ci euh, sa question bi. Mhm. mooy mouvement dal bi nga xamante ni man ci laa bokk. muy mouvement boo xamante ni euh, politique développement lay def. yëngu ci développement. yàlla dogal bi local yi ñëwee. mouvement bi ci boppam kilifa yi dañu daje toog waxtaan li ñu waxtaan mooy ci local la ñu jëm du présidentiel local doomu gox bi ñoom ñooy tànn ki nga xamante ni bëgg nañu jiite leen kooku nag yow ñu dëkk ci biir gox bi rek yaa mën a bokk ca ñooy tànn ka leen jiite moo tax ñu bàyyi bépp responsable boo xam ne foo mënti dëkk muy ci région yi mm-hmm. yàggul dara dem naa Ndar mm-hmm. ñu doon investir yi suñu benn membre boo xam ne ci mouvement dal bi la nekk mm-hmm. noonu lañ ko defee ci ay yeneen raison ba ci fii euh, région de Dakar ci commune yu bari mais li ngeen wax mooy bépp responsable ci commune boo mënti nekk demal xool list ba nga ci woon coalition ba nga ci woon nga dugg ànd ak ñoom ci lañ defee ñun soit ci coalition bi nga xam ni moom la ñuy wax ànd liggéeyal sunu gox. tama ni douze partis ay mouvement ñoom ñoo ko ñoo Euh, jiital ci nag bu ñu tànnee ba pare nag dañoo tànnaat suñu biir jiital ci ku ñuy wax euh, monsieur Mapenda Faye pour que mu mën ñu jiital suñu liste boobu parce que am nañ yaakaar ci moom am nañ qualité ci moom parce que dañoo toll foo xamante ni dañu ni ab dëkk boo ko bëggee doxal muy commune muy lu mënti doon bul jaay bul jaay leader bi mais jaayal équipe mais waneel équipe parce que feek ñi ngi jàpp ni njiit benn nit bi rek la Euh, te bari na fi ñoo xamante ni dañuy ànd ak nit mais lu mu wax rek da nga naan yaaram kàlla da ngay fi tasu mel ni moom rek moo moom moo am xam-xam moom rek moo am xel mu rafet mais ñun ak suñu coalition bi nga xam ne def nañ ko euh, vraiment am ci ay responsable ci nekk yoo xam ne mën naa ci cité mel ni Cheikhou Diène nekk ci benn benn benn benn organisation ñu te ko ñu dugal seen question 15 millions pour war a dem ci ay élection moom waroon na ñëw fii Pikine commune Pikine Nord pour taxawal candidature am mhm. mais bi ñu toogee waxtaan ci coalition bi mais daa mujj jëlaat yooyu yëpp yëkkati ko ñëw tegaat ko ci table bi nañ leen àndandoo ak coalition bi vraiment coalition bu yaakaarul la pour mën a suqali bu ñu dénkee suba commune Pikine Nord ñu mën koo yóbbu fi nga xamante ni vraiment commune bi day doon commune boo xamante ni référence lay doon ci commune yëpp vraiment loolu moo ñu gën a pousse te ñu dugg ci biir coalition bi vraiment di ci euh, di ci liggéey liggéey bu am solo nag mooy fexe ba suba incha allah ci élection yi ñu jëm ah ni euh, coalition ànd liggéey suñu gox jox nañ ko commune bu boobaa dina méngoog turam mooy ànd liggéey suñu gox ci loolu lañu Bienvenue sur Salam Vision.